mbokki Leewtoo TV nuyu nañ leen siyaar leen ay way ngeen di dégg nag tey ci dimanche ji yaa ngi dégg ñu nekk fan arène Adrien Senghor wala boog maa ngi jégalu kooku mu ngi traversé di yàq image waaye du ci dara gaal gi la ñu ne ma naan Adrien Senghor gaal gi mais lépp ci Grand Yoff la maar kaay ci Leewtoo TV Adja bëgg naa. maa ngi lay delloo de. ci loo ne. ça va. lu di fii tey. <laughs> seetaan laa ba ak animation. 100 pour 100 kan. kuy sa mbër. Mbale Alpha. Seex ah, Tijaan. lii sa kuy sa mbër yow bëgg naa la. ça va delloo naa la ziar. da nga ñëw seetaan si. dama ñëw seetaan si en même temps promotrice bu bees la ma. noo tudd sant wu Cuku production. production. am ngoon nga maar. maar fii la jaay doy asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu leen di bëggee. sécurité bëgg naa la. Jackson maa ngi lay ziar. non Babacar mu jël fi s'il te plaît yàgg naa jaay bii <laughs> mais jax si ci loo ne <laughs> sant rek lu tax gaal gi deux millions cinq cent dóor mu daanu man ñaari catégorie mu tax a boo amul rek ñu kontaan xale yu ndaw yi dañuy lekk war a lekk ci làmb moo tax toujours damay sawar pour tëgg deux catégories. su ma la seetloo daa ni promoteur buy def social nga de. non social ak si biir business bi parce que business la d'abord avant le social. waaw ci ci biir waaw. y a toujours un prince ñaata biir nga jaay rek. Ah, xaw ma ko de mais ñu fi jaay nag ñu sant yàlla. <laughs> ci ah. ci kanam tuuti waaw. ci ji ubbi na lu waral teewaay bi fii tey mais xam nga ñun dañu bokk ci association des amateurs de lutte et de lutte avec frappe et de discipline assimilée mooy lutte simple lutte frappe lutte olympique lutte euh, gréco-romaine lutte libre yooyu yëpp Euh, ci njiital euh, du jànje ko moo tax tey bu ñu xewlee tey ñu gisee ak ñoom Alioune Bale Basse ñu ne léegi dañuy commencé di euh, regrouper ñun ñëpp su lamb amee wu rëy lamb simple wala lamb doon ñu ñëpp ñu fekke ko looloo tax ñu ñëw tey ma sama sama jigéen bi mu bokk ci Amalda aussi Mbaye Mbaye loo wax. sëñ Ba nga xanaa di la ziar mu naa la mu waral teewaay bi fii. waaw teewaay bi fii xam nga nag man ku ma xam ci li may yëngu ci lutte simple dafa bari xam nga Jax moom Jax waa lutte simple la mu bëgg ñun amateur amatrice yi di jàpp bu baax a baax di tëggal combat yi neex ñu daal nga xam ne ñoo doxatu daal la ñëw seetaan si rek. yee eh, Ibou Ndiaye Obel Obel ngay ñaan yàgg maar waaw waaw. Obale ngoog jëlal lu xew bañ na dafa demee daa am côté bu muy gérer Casamance man maa côté man maay champion du Fodji moom mu nekk champion du Badiana xamante nañ bu baax man ak moom. xamante bu baax man ak général du sax mbapat dañ ko war a mayee arène parce que Serigne Touba gars yi gisul garaaw waaw tey kuy jël fii tey ah fii kan mooy borom tey incha allah rabbi si kattanu yàlla yàlla mooy maye ndam mais maa ngi ñaan yàlla ak Serigne Touba yàlla nañ ma may ndam si man Serigne Touba. waaw Diop yow ñëpp ñu ngi si jàmm ñu ngi si jàmm.

champion maa ngi lay bëgg. maa ngi lay fay Babacar. mbaa am na jàmm. waaw bu bëree bëri. man waa Mbour géej. boo amee jàmm rek am naa jàmm waa Mbour jëfandikoo si jàmm. kon yal na yàlla yal na yàlla may ñëpp jàmm. amiin jàmm rek ma am solo. ndax lii dafa neex quoi. daaw mu mel ni da ngaa ñëw wane sa bopp. ren nga ñëwaat. waaw noonu lay demee combat amul. du ma toog yaa jaaral te lamb di sama liggéey. si lii laa feeñee lii moom ma def mbër. ruus ma fee del si waat. parce que sama combat dafa yéex naka woon na taxaw. du ma toog rek bàyyi rek damay wàcc si waat ajuma barki démb yaa jël adresse Senghor. waaw maa jël adresse Senghor. koo daan final. baytin bu moon Fadal. waaw. tey fii xam na daa mel ni de. non non xamul sax lépp làmb la ay li mooy làmb ndaataango yooyu la meer kii gañ. sa combat frappe dox nañ kan sa combat frappe ndax ñu koy dox. sama combat kan. frappe li affaire toog déglu gars yi rek su ñëw baax na. bëri yuy ruuf fii comme ñaan ay Amadeer Malick Niang Garga Mbossé Yékini Junior yooyu yëpp ay combat la pour man nañ ñëw ñu bëree dañ laa ragal ndaatu dañ maa ragal ndax buñ maa jël kan kan la ragal ñoom ñëpp ma ragal kan kan ñoom ñëpp ma ragal ñooñu ma lim ñëpp limbal ma déedéet ñooñu ma lim ñëpp waay Amadeer da laa ragal bu ñu ma ñeme woon jël na mu yàgg dañ ma nekk palmarès Yékini Junior da laa ragal ku ñëw baax na foofu laa yem lamb laa yëndu rek Thank you. Thank you. jàmm réew na di bàyyi ko daan nga ko waaw doo bàyyi jàmbur eh yow yaa ko daan doo ko bàyyi. non damay wax ak loolu xam nga ne daan nga ko kay bàyyi ko. xam nga ni lamba la. mais mbot mi ko mbot la ñoo bëgg dëkk barki alxuraan ban dëkk. ñun Bambey lañ dëkk. Bambey fan biir Bambey. Ngoy ñu naan Ngoy Ndié. ah Ngoy Aliou Sile. waaw foofu lañ dëkk. moo tudd yow. man Ibrahima Fall laa tudd. Ibrahima Fall waaw. Ibrahima mën ngaa bëre de. man la ñuy wax roi de la forêt mais sama rakk la quoi. sama rakk la billahi rëy ndeysaan ombali Pape Maroon lamb loo yuuxu yuuxu loo xaacu xaacu bu am suuf lee nga xool li ngay def olof am na nu mu koy waxee waaw ñëw ci ma xool olof Njaay nee na teey taamu nañ ko ci ndox waaye ci nit la gën dëggantaan booy ngay teey ah. teey a baax ah. di réfléchir di xalaat loolooy nit bala ngaa wax xalaat dëggantaan maar bala ngaa defati xalaatal dëggantaan na nga xalaat dëggantaan ne muy xalaatal ee yàgg maar xalaat baax na yàlla ne na borom xel yi laay waxal ah. maar jéemal amam xel waaw ak am solo kookoy yàgg maar borom liberté 4 muy nuyu liberté yëpp nag du mën waaye yaa ngay de loolu am Modou Mané dawal Babacar ay wax Leewtoo TV ngeen koy seetaane kon nuyu naa soppe rawatina sénégalais yi lekk à l'étranger waaw Allemagne Angleterre Italie Norvège Brésil Portugal Argentine Chine et Japon Côte d'Ivoire Mali Guinée Bissau Conakry équatorial tous les Guinées ee eh, waay day wax ak ñoom ee eh, waay Ibou Ndiaye Obali am na client Obali am na client Obali doo Obali tey am na client Babacar li mu bëgg a def. nga ah, bàyyi ko rek li mu bëgg a def na. ah am na ñaare mooy takk na ko de. bëri lay bëreel. takk na ko ba mu dëgër. bëri lay bëreel. yeew la ko def. dëggantaan. takk ba mu dëgër yëkkati. boo eh, boo bool dañ lay daan jël jël daan jël daan na ko ëppali daan na ko doole doole daan na ko Pape Maroon daanu na Pape Maroon daanu na. eh booy bawal. daan na ko avancé maar wàccal wàccal ba ci suuf calculer général day calculer te boo ñu ngi bëreel daa mën a bëreel te ñool la waaw ko buddi na ko mu sotti ko lu xew gis nga li ma lay wax wéeral na ko laa ilaha illallah gis nga li ma lay wax dafa mën a bëree boo doon numéro bi bëree lay def yàgg maar tuur nañu ko day bañ de gis nga li ma lay wax wandeel général la ñu bëre waaye booy baa ngi bañ oo gën a wóor na def ndànk def muy bëral di ñeexu ñebe de. na def ndànk eh général teel si booy bool numéro 2 baa ngi de. ndeysaan eh waay mbayam waay door na ko tànk fii de la ilaha illallah eh jël bu rëy na door tànk fii de loolooy door tànk xanal nga romb mu bës sa bopp yàgg ko benn yoon booy bi ba jàll waaw essayé na ko dafa doy waar guusam boobu dëggantaan moom général Malick mbër la manal ma ko mbëru Cheikh Ablaye Diop xaasa ngoon mu ngay dem ca ci mukk lay bëgg Babacar koy fay. ba am nga jàmm. sant naa yàlla bu wér. yaa ngi Ibou Ndiaye. luy seen problème. Ibou Ndiaye dañoo dajee Casamance. bu tëgg suñu combat man ak ñoom. ma jëlandoo a ñaari avance. jël Africa Noir jël avance am. daan Africa Noir mu ñëw di yëngal ma ne ko yaa ci des. ma ñibbi si Dakar mu nekk foofu ma ñëwaat suñu combat jotam ma jàpp ko fa rey rek laa ko deful. ba ma bëre ba mu tëdd jaaxaan ci biir géew bi. kon yonent yàlla Muhammad billaahi wallaahi wa taala. mu mel ni seen ñaan nangu na da ngeen doon ñaan bëre boole nañ muy war di wax yàlla dogal na après ñoo war a bëre dina leer après doo koy def tey bu bu bu bu taxawee ma dal ci kawam bu ñëwee ma dal ci kawam lu mu mënti def ma dal ci kawam. yaa wax li barki maam Seera Fall ba ci kanam doo ma may dara. borom joof yor borom joof yor barke yonent bi sa diggante ak général da ngeen gis wala mus a gis lu mel ni ñaan nga nangu na barke Serigne Touba ma nee na Casamance da la bëri loo ba nga bëgg a dem daan la kii kan moo ko wax de Serigne Touba amul ma ñàkk suma nday amul général xamante nañ xamante nañ day kuy daan fii ba ñaat doomu bajaan la may doomu jibi jom sey yoon man secteur bi ma nekk moo gën a tàng si kan waay laajal fan mooy masara ma ñaan kuy daan fii tey inshallah rabbi si kàttanu yàlla gëm naa ne maa koy daan nee na day dal sa kaw daan la. ba ci kanam raw bu doon. ba ci kanam doon. dinañ gis lu garaaw ci kanam. Ibou Ndiaye. waaw waaw. tey waay. waaw. ndeysaan. maa loo ko lee ngoom. armi soufflé na. Ndiaye Sélémélé quart de finale la ñuy bëree ngel jon daan na mbay nduur bakala daan daan général Malika Ibou Ndiaye jël na ko général bañ na eh jaayante doole dëkkante ngeen boole leen ñu bëree léegi nag boole nañ leen far tirage leen boole tirage obbali borom yor obbali borom jof yor obbali borom jof yor Ibou Ndiaye Malika borom Malika ak Kër ak yëmbal benn baraag Selema duñ la daan Selema duñ la daan Selema duñ la daan Selema duñ la daan Selema duñ sele loolooy maa la dàq bëree duma sa morom la wan ñaar yoon a koy daan yaak sele la ilaha maar xam nga waral coow lu ko waral Babacar. Libidor mi jëlal ma Libidor moomu. waaw Libidor moomu ngay gis. c'est le problème là. dëggantaan. moo moog ñu am combat arène. Ah. loolu la waral Serigne ne ko yow daan naa ko ñaar. yow laa ciy teg dama lay dund. kon doy na waar fa na waar. kon génne ko Lutte TV dara Ibou Ndiaye xamul sën eh jël na ko boo jamu ku jam may la loolu la Max Mbar daan wax wax na dëgg mais gars yi ñi jam may ñu ngi maye ah fii waa dañuy maye nag ah. des fois nga jam may gars yi baas ñu ngi jox mëri baas waaw ñu ngi joxante ñun bëri nga koy def de rek da day joxe dañ di daan ba bari neexal leen ni leen cinq mille ñu doon génn ci kaar gi waaw moo gën a wóor Ombale ngoog ngeen jàkkaarloog moom général nge moo leen woon kanam bëre nañu ba tàqale leen ah waay mbay kenn amul fayam jël na ko jël na ko jël na ko takk na ko da koy daan ni mu koy def door na ko tànk mu rëb eh caxabal la ilaha illallah waay ponk li bëre ñu bëre wax wax nga dëgg ci poids lu bëre Ndiaye neexul neexul parce que xam nga rek dool na jaa feeñ. waaw caa yu gàllankoor. eh lonku na ko ko mu bañ. cey lamb man Kottu biir wala ba mbir mi mel ci biir la koy dugale fële ci biir lay dugale tànk bi xamal ni muy mel ca xamal ca kaw la day gën a kawe nooju ni muy mel nooju da ngay xëcc mu yow nga bës loxo tànk koy def wala lan waaw tànk ak loxoy ànd wet ak ak wet xatar bi muy mel xatar bi da nga ko koy roof du ci muy fóot yenu ni muy mel yenu da ngay ba ca kaw ah waaw door mu daanu ni muy mel door mu daanu loxo droite da maa gauche doole da ngay doole mën a bëri Lamine Touré rek laay def waaye Papa Ndiaye ko mën Papa Ndiaye dama di moromam leen dama mënu ma ko Papa Ndiaye doo moromam léegi nee na fay wala mu bëri man ba pare wala wala na la jël su ma daanee jël wala ma Papa Ndiaye ko loolu laaj nga ama de Babacar man lay dëkk de Papa Ndiaye ministre non ci yow laay ci yow laay visé dama ko koy daan ci yow laay visé loolu leer na yàgg na ci man lay teg yàgg na ci man lay teg yaa ngi ko dégg sa bopp mu ne lan waxaatal yàgg ci man lay teg maa la man yow. man tëj ma jot yow yow doo ko Mouhamed si koy teg. ah. Papa Ndiaye faru nag yow. yaa wut ci sa combat bi. xam mënoo bëree. mënoo bëree amul doole. xamoo stef. amul xamoo sënd. amul sënd xamoo mbote. Ah. Papa Ndiaye nooy bëree di daan. xamoo kan. mënut am gàllay. xamoo guy. Ah. xamoo Dakar. xamoo gigis. Omar Diop man ko xam dégg mu naa ma dégg man ko ñettali woon ñu dégg. Omar Diop ñu ko daal dégg xamul ko. dégg xamul ko waaye Omar Diop ñu ndeysaan amul jamaane ñaar tali nga dëkk ma ne musiba daal na la ko cey amul dëgg xamul dëgg bu ko dëgg jamee mu xam ne lépp la billaay bis bu ko dëgg bu ko looro la naar ma waxoon te jiite mu ne damay lakk waaw mu ne xale wolof mooy réew wax na dëgg xale wolof lu muy jooy lu muy jooy ñu ne ko ñu ne ko jiite ko jot wax na dëgg lan moo la jiit lan moo la jiit da ngay bëre taxaloo da ngay bëre combat bi du yomb Babacar bañ ko andilee jiite jiite ñu ko bettee ren jënd jiite la. wax na dëgg day la kere. dina tànn koy daan dalay daan koy daan wala. laa ilaaha illallaah. ay bëre nañ waa Ibou Ndiaye mii. bëre taxaw kottu na ko. kottu bu may daan kottu bu may daan kottu yëg daan laa ilaaha illallaah. Ibou Ndiaye daan na général. laa ilaaha illallaah. Ibou Ndiaye daan na général. général xamoo lu xew. comprendre ko yar seetaanu oh, nga. waaw. seetaanu nga. seetaanu nga yaram bee tàng la ilaha illallah ibu ñaar doomu Diofior bi barki Serigne Touba def l'affaire suñu waa dëkk jël bi rëy na de waa Diofior dañoo nekk morom ñu Diofior yow tamit Diofior du ay caaxaan Diofior du caaxaan Diofior sama dëkk nga sama deret Diofior. yaa moom Diofior. man maay borom Diofior. Ibou Ndiaye borom Diofior. waa waa ngi yaan suul ma. te man juddoo Diofior yaroo sama juróom-ñaari maam. Sénégal bi Pakala leen wan ginnaaw jóge Mbour Serigne Ndiaye Medina bokk écurie Fass Pakala Mbour montagne bu mel ni ndeysaan ñoom ñaar ku nekk jël nga final ren Serigne Ndiaye 2 millions yi passé moo ko jël fa nga xam ne mooy arène nationale Pakala 800 mille yi ñu tegoon àjjuma passé moo ko jël ca terrain Adrien Senghor wala arène Adrien Senghor mbay ci la fa daanoon final Serigne Ndiaye daan général Malika final dimanche passé kon lu mel ni ñaari finaliste ñooy daje tey yàgg maar ñaar ñuy fàtte Khady Rose Ndiaye di doomu séréer nekk ca Allemagne maa ngi koy nuyu ndeysaan bëgg làmb séréer lool waaw Serigne Ndiaye maa dugg daan war na daan na ko Serigne Ndiaye jël na final ba daan na ko Serigne Ndiaye jël na